ginnaaw bu ñu leen nuyoo rek santati leen gërëmat leen ci jàppale gi nga xamante ni yéen ñu koy jàppale di ñu topp di ñu seetaan di ñu teewloo fépp ci àdduna wërngal këpp moo xam ci 88.5 la moo xam muy ci euh, Facebook bi wala muy ci YouTube bi fépp foo xamante ni yéen ñu fay bàyyee xam rek ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax te di leen ndokkeel di leen euh, jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax am mbégte nag ak kontante di teewaat tey ci seen jotaayu penc mi waxtaanee ak yéen di ci penc mi. comme ni ñu koy defee rek euh, sa su nekk euh, indi benn thème teg ko ci taabal ji fexe cee joxe li nga xamante ne mooy suñu xalaat mooy ñaari xalaat bu gàtt waaye yéen ñi nga xam ne yéen ñuy teewlu fu ngeen toll rek di ñu dolli ak seeni xalaat yu rafet ak euh, seeni xel yu yu yu yaatu macha allah ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax leen sant bu baax a baax mbokk yi tey ñu fas yéene waxtaanee ak yéen benn thème bu am solo thème boo xamante ne yaakaar naa ni kenn ku ci nekk rek boo ci xoolee sa bopp danga ci gis sa bopp. ndax thème la boo xamante ne nii euh, comme niñ koy waxee saa su nekk rek euh, dafa wasaaroo ci biir dëkk bi mais tamit ci biir réew mi mën naa ne sax ci àdduna wërngal këpp muy loo xamante ni mën naa ne fépp lañ koy dundee foo ko làmb fu ne rek da nga ko fa daj te muy temu corruption corruption nag doon loo xamante ne nii yaatu na ba daj àdduna wërngal këpp ah corruption nag boo ko déggee mooy lan corruption mooy ger génnut euh, ger ger nag yaakaar naa ne doon na lu lu doy waar loo xam ne lu lu ñaaw a ñaaw la lu mat wàññi ci fépp fuñ koy defee lu mat a moytu ndax dafa bari ay loraange yoo xamante ne ni mën nañ koo jur mën na koo jur moom ger ger kon euh, di ci ni ngeen ko xamee rek li nga xam ne ñu ngi koy gis bis bu set mbaa boog ñu koy dégg bis bu set euh, di euh, yombalal ay nit loo xamante ne nii xëy na na yombe noona di jàppandalal nit loo xam ne amaana bu ko jaaroon ci yoon moom ko war a jaar mën naa bañ a mën naa bañ a jàppandee noonu mu jàppandee ci moom loolu nag ñu mën koo gis fépp fépp fépp foo maa dem rek ci réew mi ci secteur boo mën a dem ah fépp foo mën a taxaw rek mën nga faa gis exemple bu mel noonu kon ñu koy def jëm ci corruption corruption nag moom foo ko déggee rek xamal ne ñaara ko séq mbaa bu gàttee ba gàtt ñaara ko séq mën naa doon nag loo xam ne mbooloo lay doon euh, jëma ci ay jóge ci ay nit jëm ci ay nit waaye kenn nit moom du ko def mukk ndax corruption am rek am na koy corrompre waaye am na tamit ku ñuy corrompre muy ñaar ñoo xamante ni kenn ku ci nekk am nga ay responsabilité ci wàllu woowu muy ñaar ñoo xamante ni tamit kenn ku nekk am nga loo bëgg ci sa bopp mais am nga loo yàq loo xamante ni du yam ci yow mais ci ñi la wër ak ci réew mi yépp la jëm kon muy loo xam ne lu jar a bàyyi xel la euh, képp koo xamante ne nii da koy def ak képp koo xamante ni day nangu ñu def ko ko rek am na loo xamante ne nii responsabilité la bu mag a mag boo xamante ne nii war nga koo gàlloo tey nag bu ñu xoolee muy phénomène boo xamante ne nii day jël empleur maanaam day gën di law di phénomène boo xamante ne nii day gën di yaatu phénomène boo xam ne euh, dafa mel ni luñ ci gën di wax muy gën di jëm kanam te moo de la muy jur ci ay loraange dafa mel ni dañ koo xamut walla boog dañ koy ignorer maanaam di ko di ci teg tànk ngir bañ koo xam tey jag mu doon doo xam ne nii ni mu tasaaroo ci réew mi jéggi na dayo te tasaaroo gu mu tasaaroo ci réew mi ak yaatu gu mu yaatu ci biir réew mi waral na lu baree baree bari loo xam ne waroon naa romb fi mu nekk mënu koo romb tey jii mën naa ne exemple yi bari nañu bari waaye goo xamante ne nii dangay wax rek ba fa nga mën a yem nga yem fa waaye mënoo koo dajal euh, corruption doon loo xamante ne nii fépp foo xam ne bari na fa rek foofa moom mënta yaakaar jëm kanam benn yoon waaw ci suñu réew mi nag wax dëgg yàlla dafay bari lool anam bi ñu koy defee tamit euh, doon anam bu ñaaw ba jéggi dayoo ndax Sénégal fi ngay gis koo xam ne day toog ci bërëb di fa liggéey euh, di fa dàq wërsëgam te fekk yellowut bërëb boobu ndax amul niveau ba amul xam-xam ba waaye la ko fa teg du dara lu dul poosam la ko fa teg du dara lu dul xameem la ko fa teg du dara lu dut loo xamante ne nii ay lijjanti boppam la yoo xamante ne ni méngawut benn yoon ak xam-xam bu mu am ba tax ko faa toog ndax nag corruption moom euh, du jóge ci xaalis rek donte xëy na ñu bari jàpp nañu ne euh, nit mënoo ko corrompre lu dul ci xaalis mais man dama jàpp ne gën naa yaatu loolu gën naa yaatu loolu ndax li tax mu gën a yaatu loolu mooy nit day ñëw taxaw soxla mbir ci yow keneen dikk taxaw soxla jëmmi mbir moomu momit ci yow ñoom ñaan ñëpp ñu bokk soxla kenn ki am xam-xam bi am kàttan gi am man man bi ka ca des nag wax dëgg yàlla moog mën a yem du xam-xam bi du du dara waaye am na loo xamante ne nii moom ngay xool leneen lu war a mën a tax nga jël kook nga xam yow ya wóor na la ni xamut sax li liggéey bi laaj wóor na la ni mënu ca dara nga jël ko teg ko fa bàyyi ka ko xam mu génn ci mbedd mi di wër bu boobaa ci loo ko teg xëy na ci sa bakkan nga ko teg xëy na danga xool ka la neex nga jël ko mais tamit xëy na kooko dafa nekk wala mu dend ak koo xamante ni sa nit la waral nga taamu ko bàyyi fi keneen koo xamante ni moo ko gën a yelloo loolu yépp wax dëgg yàlla xeetu corruption la bu ñu waxul turam rek waaw kon euh, corruption moom dafa yaatu te dafa bari corruption moom mën nga ko jàngat ci ay point yu baree baree baree bari te jii gis nañ ko gisati ko dafa mel ni sax information ngay dégg ñu naan ah, agent kat lekk na nangam ci chauffeur ba wala na nangam ca eh, kay dawal saret wala loolu ndax dañoo ba mu doon dañ ko far danger bi nekk dëggantaan foofu la danger bi nekk da nga yor sa di dawal bi moo xam taximan nga wala en tout cas chauffeur transport en commun nga mooy xam loo yor rek nga nekk ci tali bi di daw peut-être yoroo sax sa permis wala mën naa am en tout cas devoir yi la war sàlloowo ak moom këyit yi nga xamante ni yaa ngi ko war di yor foo toll yoroo ko wàcc nga yoon wi moo xam da nga def infraction moo xam loo mën a def nga tase ak agent boo xam ne moom moo la war a teg ci yoon war laa jubbanti war laa wan ne yow mii kat wàcc nga yoon wi agent booba bu fekkente ne nii doonut ko jub dëgg euh, te war a mën a doxal service am ni mu waree dëggantaan la muy xaar ci yow du dara lu dul nga yëkkati loo teg ci loxoom ngir mu bàyyi la nga jàll. waa mais foofu bu fekkente ne lu mel noonu am na fa nga yëkkati xaalis jox ko mu bàyyi la nga dem. ak say lacune dem di continuer di def même erreur yi nga xamanteni yoon nga yoy nga don def ëlëg ci bir mu meuna dem ba jur ay jeye yo xamanteni ni kenn du meuna xam ni mu tollu ndax nak dañuy wax lu bare bare bari ci problème accident yek ya ci aju yep di tuddu ay responsabilité yu bari responsabilité ci chauffeur yek responsabilité ci tali yek responsabilité ci nit ñiy jël oto yeeg yépp waaye dafa mel ni dañ faral di duut baaraam responsabilité ñi nga xam ni ñoom ñooy taxaw ci tali bi wara a contrôler ñiy daw ci tali bi xool ndax ñi ngi en règle waa wala déet xool ndax liggéey bi ñu koy teg ci yoon am déet ñu bari ci ñoom nag ñu dem a dem ba tey ñépp boole leen def leen ci genn mbuus ndax benn bët rek lañ leen di xoolee mooy ku la ci arrêté tamit boo jëlee dara am loo jëflante ak moom rek mu bàyyi la nga dem ca loolu nag yaakaar naa ni du seen cër du seen rôle te du ñëpp waaye mën naa ne ñi ci ëpp tax nañ ba dañu jël ñëpp rek boole leen ci même catégorie boobu te loolu di lu doy waar mais tey jii da ngay dem ba ci bërëb liggéeyukaay yi moo xam muy ci ambassade yi moo xam muy ci entreprise yi moo xam muy ci marché yi moo xam muy ci atelier tailleur yi bërëbu liggéeyukaay bu mën a doon nga dem soxla fa dara la nga fa soxla pour nga jot ci rekk problème la ndax li tax mënoo ca jot mooy dangay daw a daw a daw ba sonn jaar fi nga war a jaar du tax nga am li nga bëgg foo tollu di daw Euh, ñu lay dàq di la demloo tey suba ginnaaw suba nga xam ne boo amul tuuti patience da nga dem ba xàddi te boo amee patience sax boo moy tuut da nga da nga maanaam di nga di nga dem ba benn jamono da nga sës ba toll foo xamante ni nii doo bëgg lu dul far bàyyi benn yoon mais bu fekkente ni nii loo soxla la ba mënoo ko ñàkk da nga dem ba da ngay obligé la nga doon bañ nga def ko te muy génne dara joxe kon loolu tamit luñu nyusir seetlu la moom ñoo xam ne nag xëy na loolu yëpp du leen ci fekk ndax dañoo jàpp ne réew mi moom ni muy doxee rek mooy loo fi soxla soo ko bëggee am faaw nga yor dara boo yoru dara rek li nga soxla du lijjanti ko waaw boo yoru dara moom li nga soxla mënta lijjanti ko munoo wax a wax a wax ba li nga soxla nga lijjanti ko kon faaw fépp fay dem rek da nga war a dara dugal sa poche wala nga def ci sa pochette ngir boo demee bu naree dëgër nga génne joxe su ko defee li nga soxla yomb fa nga bëgg a nga mën faa yegg ci lu ci lu ci lu gaaw dañu gis ne mboolem ñi nga xam ne ñi ngi nangu di joxe pour mën a am li ñu bëgg boo xoolee teguñu ko ci dara lu dul ci seen intérêt yi bopp ci seen mbiri bopp lañ ko teg xooluñu ndax ñi ngi lor ñeneen xooluñu ndax ñi nga xam ne peut-être amuñu possibilité boobu maanaam ñoom ñoom ñi ngi leen di sonal loolu yëpp seen yoon bàyyiwuñ ci xel li leen yitteel rek mooy seen soxla na faju donte day jar ñu wàcc ci yoon sax seen soxla na faju te pourtant ñoom nag wax dëgg yàlla kenn gënu leen a wàcc yoon kenn gënu leen a wàcc ci yoon ñoom ñi nangoo ku leen corrompre ndax man mii jël sama xaalis ñëw fu mel ni ci mairie bi tey exemple ma war a ñëw fu mel ni ci mairie bi soxla fi benn këyit wala ma ñëw ci police bi soxla fi benn këyit wala ci tribunal bi wala feneen fu mën a doon maam am lu ma soxla loo xam ne saa yu ma ko soxlaa fii laa war a ñëw man leer na ma nàññ ne lii ma soxla fii rek laa ko mën a am see te droit may na ma maanaam li ma soxla ma ñëw ba fii laaj si ko fi mu doon loo xam ne kenn waru cee fay dara par exemple waaye ma ñëw ñu tegal ma ci ay taxes ak yu yu kenn xamut di ma ci laaj loo xam ne ëpp na maanaam li ma li ma li ma li ma li nga xam ne man moom laa fa waroon a joxe bu dee lu ma fa waroon a joxe sax am na fa wala nga ñëw loo xam ne waroo caa joxe ñaar dërëm ñu la ci laaj loo xam ne yow sax doo comprendre waaye léegi man mi nga xamante ne nii man maa ñëw soxla sama soxla ñor ma ba egg ci lool waral ma déplacé wu ñëw su ma ñëwee. ñu teg ma ay maanaam ay conditions ma war a joxe loo xamante ni man mii leer na ma nàññi ne lii kat du maanaam maanaam du réglement bi waruma ko fee joxe bu boobaa lan moo war a mën a tax mënumaa am man ci sama wàllu bopp fulla ak fayda ak mat gu toll ni yamale ñàkk ko ak am ko bu boba lan mo wara tax mënuma bañ kuma corrompre su boba lan mo wara mëna tax mënuma jaral manam ma egg ci ak ñom ba fa gëna kawé kawe pour wone né man mi maa ci sama yoon waye ñom ñi ñoo wacc yoon question bobu nak tontu ko du jafé ndax li tax du jafé moy su boba fa nga xamni fa nga yaakaaré ndimbal muy fa nga xamne japp nga ni bo fa eggon ak ñom ñu jox la sa ak jox la fa sa yellef fofa ci bopam bo da ngay fekk ni ñaaré fofu sax muy gëna doy waar da ngay gis nit nek ci ay droit bu baaxa baax ñu bëkk ko xañ mu dem fenn soxla dara ñu laaj ko lo xam jaadul mu jaral ko egg ci ak ñom ba ci yoon mais day mel ni bu ñu demee ba toll ca yoon sax su boobaa maanaam doole dafay mën dëgg doole dafay mën dëgg bu baax a baax alal dafay man dëgg tamit ndax su boobaa la nga doon bañ fii ba tax nga dem fee di fa di fa jooytu soo fa demee it dangay sonn rek doo am dëgg duñ la jox dëgg kañu jox dëgg mooy ka nga xam ne pare na pour dugal alal kon muy loo xam ne fépp foo mën a làmb mën nga ko faa daj la ko tàmbalee ci kaw ba ci suuf kon dafa yaatu lu mel noonu nag euh, bu amee wax dëgg yàlla day day day naqaree lijjanti ba egg ci lool day naqaree lijjanti torop ndax su ci ni nii ña ca kaw ñoo koy def ndax nag corruption bi moom euh, yaakaar naa ne du secret bu may wax fépp foo mën a dem ca kaw muy si ñi ñu jiite di ñi nga xam ne ñoo ŋànk yoon di ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy teewal fépp ci àdduna wala ak fu mën a doon fépp foo dem ci ñooñu rek danga ko fa fekk donte du ñëpp nag ndax leer na ni am na ñoo xam ne moom dañoo doylu démb tey soog a ñëw kon du ñëpp kon du ñu généraliser waaye leer mooy ne am na ci ñenn ñoo xamante ne nii kenn mënu leen a maanaam kenn mënu leen a génne ci loolu segam nag ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci kaw ci ñoom la loolu di am asamaak ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci suuf kon problème la problème la bu rëy a rëy rëy rëy rëy corruption mën naa ne moo gën a graaw feebar buy rey nit ndax di tax mu gën koo garaaw mooy kenn nit da koy séq ak moroomam ñu yaakaar na ci ñoom la yam fekk mën naa law ba yàq lu baree baree bari loo xamante ne ni ñoom ci seen jëmmi bopp xalaatuñu woon ne lii mën na ko yàq ndax corruption mooy loo xam ne wax naa ko ci njëlbeen amut mel ni réew mu muy am réew moomu di développé loolu mënta nekk corruption moom ak développement mënuñoo ànd ba àdduna di tukki am réew mënta ànd ak corruption di ànd ak développement kon nag loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax ndax ñun fu ñu toll dañuy wax ne dañoo bëgg réew mi jëm ci kanam dañuy wax naan dañoo bëgg euh, réew mi avancé loolu lañu bëgg mais bu ñu ko soxlaa dafa am loo xamante ne ni moom moo ñu war dafa am lu mu laaj. voilà li mu laaj nag bu ñu ko ci joxewul rek problème day am kon ñaar yooyu mënuñoo ànd te il faut que ñu xam ne tamit mënuñoo ànd benn yoon beneen bi ci des mooy euh, di nga gis ne am na fépp ci àdduna mais différence bi mooy fi mu ëppee ak fi mu yéesee ndax moom foo mën a dem moom di nga ko fa fekk amul fenn fooy dem ci àdduna rek te doo ko fa fekk réew yi gën a développé ci àdduna boo fa demee di nga ko fa fekk États-Unis Chine ak France ak foo mën wax ci àdduna rekk boo demee am na fa waaye liy différence am diggante réew yooyu ak réew mu mel ni Sénégal mooy ni foofa boo fa demee peut-être cent yoo jël mën nga ne benn nit ñaari nit ñoo ko fay def wuuteeg senegal gi nga xamante ne nii mën nañ ne man mën naa jàpp ne tey quatre-vingt wala quatre-vingt-dix pour cent ci Sénégal ci corruption lañuy dund loolu moom boo ko gëstoo dinga ci xam dara ñi ciy dund ci corruption ci réew mi ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo fas yéene dese rek seen ngor kon différence baa ngi foofu loolu nag fekk mi ngi am moom wax dëgg yàlla am na foo xam ne bëgg lañ fa egg mais duñ fa mën a egg ndax corruption baaxul day rey développement da koy mi ngi mel ni rek nga fekk kuy daw nekk ci yoon di daw nga gor ay tànkam wala mi ngi mel ni rek nga fekk garab guy jug dem ba commencé dëgër nga yàq reen ba noonu muy yàqee noonu muy dagge maanaam euh, élan noonu la corruption mën a yàqee développement wu réew parce que tilim tilim la yoo xamante ne nii feek raxasuñu ko ba mu set rek leer gi ñu bëgg duñ ko mën a am ay obstacle la yoo xamante ni feek maanaam dindiwuñ leen ci suñu kanam rek pour jéggi ko ba mën a jàll ci kanam day metti te tey nag réew mi dafay yaatu yaatuwaay boo xamante ne ni pour jëlee ko fi euh, néew ma du du mën a nekk de mais xam naa du mën a yomb dana jafe ba yegg ci lool li tax muy jafe mooy comme ni ma ko waxee sànq rek. ñi nga xam ne peut-être ñoom ñoo fi toog pour lijjanti ko boo xoolee dafa mel ni ñoom sax ñaare ci ñoom nga koy gën a fekk te ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci suuf di dundee alali ger mu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo toog nekk ci yenn entreprise yi nekk ci yenn marché yi nekk ci yenn bërëbu liggéeyukaay yi te di dundee alal jooju ñooñu boo ko xoolee ba ca biir dafa am loo xam ne ñaare moo koy waral ndax li koy waral rek du dara lu dut dañoo nekk ci bërëb di fa liggéeye te peut-être condition yañ fa war a nekkee dëgg-dëgg nekkee fa noonu loolu moom benn raison la ci donte nag du loolu dong mais loolu moom lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu mën a seetlu la ndax yaakaar naa ni boo bàyyee xel réew mi fan yi bis bu set nga dégg ay fonctionnaire yuy grève tey nga dégg waa état civil di grève suba nga dégg syndicat jàngalekat yi di grève gannaaw suba nga dégg médecin yi di grève kon ñooñu di grève boo xoolee li tax ñuy grève tey mooy ne conditions yi ñu war a nekk dafa mel nekkuñu ci benn ñaareel ba euh, li nga xam ne moom lañu ñu warloo ak ñoom muy seeni salaire duñ ca jot nañ ko war a jotee réew mi dem ba metti toll foo xamante ni nii dañoo soxla ku leen yokkal seeni saleer mu mel ni yombagut waral ñu ñaxtu fuñ toll waaye yu mel noonu nag bu fekkente ni dafa am ci ay bërëb liggéeyukaay ña nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci bërëb yooyu dinañu dem ba benn moment bu ñu àndut ak ngor dëgg dëgg dëgg dëgg pour ñu rax ci liggéey bi leneen rek day yomb te loolu nag seetlu nañu ko fi bu baax a baax a baax ndax bu ñu demee ba ay agent de police wala ay agent de sécurité wala ay agent état civil wala ay agent fu mu mën a doon bu ñu demee ba ñoom ñooñu ñuy lekk ci maanaam alali nit ñi te fekk ñi ngi liggéey peut-être parce que euh, la nga xamante ne ni moom la ñu warloo ak ñoom defuñu ko te ñoom tamit xëy na dëgg-dëggi ngor ga war a nekk ci nit des na ci ñoom wala boog alal jiital na leen ci ñenn ñi ndax nag du ñëpp encore une fois te loolu dafa mat di di wax du ñëpp mais yooyu yëpp bu dajee rek kon pour nga def lu mel noonu day am solo ñu xam ne pour nga def yu mel noonu day yomb day yomb baax a baax kon corruption nekk loo xamante ne nii feebar la bu yéeme bu doywaar boo xamante ne nii mën naa lore lore lore egg ci niveau yoo xam ne mënuñu ko imaginé nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne nii ñooy soxla képp koo xam ne soxla nga ak lu mu mën a doon ak lu mu la mën a ñor na nga fexe ba bu mu la jaral ngay maanaam def yoo xamante ni naka sudul noonu la te ëllëg si biir lépp ci sa kaw rek lay wàccaat nga xam ko ak nga ñàkk koo xam képp koo xamante ne nii yaa ngi toog di liggéey di xaar ay nit ngir mën a am ci ñoom loo lekk tamuy loo xam ne wuute na ak lañ la fa tegee yaa ngi koy def peut-être bàyyiwoo ci xel mais ci sa kaw rek lay ñëwaat ndax li tax muy ñëwaat ci seen kaw ñoom ñaar ñoo ñépp mooy ni li tax mu ñëwaat seen kaw ñoom ñaar ñëpp mooy ni day téye réew mi day bloqué réew mi bu baax a baax blocage boobu nag dafa mat a bàyyi xel ndax ñëpp ci réew mi lañ bokk voilà kon loolu moom yaakaar naa lu lu lu mat a bàyyi xel la ñu ñuy xamal ne li ñu fi amoon ci waxtu mat na ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi nga xam ni yéen a ñu koy topp di leen gërëm te di leen sant lepp lu ci ju lu ci jub rek ci eh, suñu borom la katanam la lepp lu ci deung tamit ci eh, suñu ñak fasala ak suñu gatt xam-xam ñu di leen teewlu eh, ci commentaire yi ak dolent yi yeen ñi nga xamne yeen ñuy teewlu ñu safo and ak ñun sa su nekk yeen auditeur bawal media ay tamit yeen auditrice yu bawal media ndax man fuma tol dama leen di xaajale ndax auditrice yi tam dañ ci am solo ñom jigen ñi wa ma ngok ah <laughs> mais tamit di leen sant bu baax a baax yéen internautes yi nga xamante ne yéen ñuy suivre ci euh, réseaux sociaux yi di ñu topp ci plateforme digitale yi di leen gërëm bu baax a baax te leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen émission penc mi jërë ngeen jëf.